berep Ina rebatep Reptep Reptep Ina teberep Ina rebatep Reptep Nah ada berek, ada budaya Itu tidak Samba moom lu mu la digal lu ci bàyyi dara dara dara dara defal lépp am doole waa tëdd bi xam nga am na ñu nga xam ne nag dañuy nekk dangay nekk sa liggéey ñu bëgg laa rey allo waaw ma allo oui euh, Birane allahu akbar waaye li gaawut biraan ban ban biraan biraan bu njóobu waaye dëbb tay rek biraan woote waa biraan na def ah biraan yow bàyyi nga ma de A fa lolo di la seet si incha allah. ah dina ma neex incha allah dinaa la xaar. à bientôt merci. merci. waaye iya, yéen Serigne Kamba mi du nit de biran benn dëbb rek biran wote yow lii duma ko arrêté di dëbb ba Biran tak takk ma rek ma nekk nag grande daamu ceeb yi Sénégal moom ku fi lekkati ceeb ci man ngay jaar damay namm dara dama dama indi chaise ba léegi teg ko fi voilà. ça va bien ma chérie ça va. ça va eh sa yére bi yaa ko wéetoo xoolal moom laa sonn nii toog rek. jàpp na la de. di la rek nag. merci de ñaan nag. maman Oulaye ma loolu waxoon loo ci xam. ma fii. puisqu'il t'aime, tu l'aimes, et tu dis, épouse-le et vivez votre vie comme baax amul benn problème. c'est vrai maman Oulaye mais j'ai peur de mon avenir. ton avenir suba suba yalla. la dit, ngi la souffrance guerre na pour yow. doy na li nga souffrir yëpp doy na léegi xam nga lan moo ci des vita vie bu sedd sa xol seet jëkkër ji nga bëgg mu bëgg la nga sëy ak moom ngeen tegu ci yoon jàmm lu ñëw ëllëg nga teg ko ci yëfu yàlla la li la yàlla dogal waaye pour la moment daal bébé souffrance merci doy na اللي هو رون سوفري دي بسوفري نو تي ريزون ماما اولاي نوك سا سما خريب بي ني لا ماكو واخي ديزا كونساي بو مو كونساي ني لا ماكو كونساي وي تاي دو بور يو من مي ما خم نان موي سولوتيو دي دي سولوتيو دارا نورو اي جوي ay rëy yu dul ak sax loo xam ne ni bi mun dana koo wax bi nga xam lu ku la bëgg nga bëgg ko ngeen sëy te yàlla rek tax su ko si Tu as raison, maman Là, je réfléchis bu baax. merci. jëf nga may remercier. dem nga may remercier mu ngi sa yàlla defal li ma la ko ¿eh? dina baax incha allah. moom damaa bëgg bu yegsee ci biir mu xam xam kay entrée tëjuwul waaw mon chéri quelle beauté ah mon chéri ñaaw rien que pour toi ah bon mm-hmm. je suis preneur donc kon baax na mais toi à l'aise ah ça va waaye moom tey bu dee nga di waaw gis nga de xam nga laa

macha allah nuyu ma man nag. yow. waaw. Ahmed li bëgg ma wax yow. ah donc su ma takk ma. takk la loolu nga bëgg. loolu donc nag laa bëgg man pare nga est ma. loolu laay wër baykat laa de te xoolal sànni naa njàmbali. njàng sax moom daa xeeb. bojjukat ceeb international mooy doon man bu boobaa. waaw waaw. te c'est sûr que naxuma. naxuma la. tu es amoureuse de eh, man je suis hyper amoureuse de toi. Ah waaw waaw. wóor na c'est sûr. bien sûr bébé yow tamit. yow laay wër. yow nan nga ma mën a laajee loolu te takkoo ma. loolu lii day montrer sa preuve d'amour. sama preuve d'amour bu boobaa nga xaar ba takk ma sa takku san weesoo incha allah nga xam ne tu auras une femme toute neuve rien que pour toi dama denc sama bopp ba fii ma toog. rien que pour toi. yaa loolu. je une femme vierge. man may doon man may doon góor gi njëkk si yow. yaa doon góor gi njëkk si man. <laughs> waaye rien que pour. non rien que pour moi rien que pour moi. ah, ah bon xaaral tey moom dama lay fetal ndax loolu. <laughs> Euh, rien que pour moi. rien que pour toi parce que dama je me suis gardé ba âge bii nii. ah bon. loolu moom dama koy fete xaaral moom la loolu moom dama koy fete day toj xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral rek bon lii moom ci may bu njëkk bi lay commencé maa ngi ko jox ci may bu njëkk wa mas li la ma def mas moy xat Ousmane Anta tay man ma wax wax motax ma dajale leen parce que mbëggeel bu neex bi mo gis si yéen ñaar nii du man mako wara yaq legui dal dama bu dama bëgg gën dëkk bi sax ben yoon ba la ngeen nekk fi ngeen dund seen dund looy non def dara bu je ne suis pas d'accord. écoutez-moi votre responsabilité n'est pas engagée man kay suis dem ndax man maa ñëwoon seen biir bàyyi leen ma dellu bitim fa à jamais. loolu ma permettre. Je ne peux pas permettre faire des Europe maintenant je vais je a faire.. je bëgg profiter de ouvrir les yeux Ousmane je veux devenir ta femme. Taïde, je suis l'homme le plus heureux au monde.

En tout cas, moi, je ne me permettrai pas de dire cela. mais moom lan lay daw lan lay laqatu fa lan lay yóbbu xale yi di daw lan lay laqatu ah. Birane dinañ def suñu liggéey ba fépp fu mu làkku rek dinañ fexe ba gis ko. quelle barbarie. je ne comprends plus rien moi. non comment xamatuma exactement moom

maa ngi nii rek. maa ngi nii rek. ah Ndiob. ah tey de moom gis nga. ah Ndiob Ndiob tey da nga yaay. moom rafet na. moom de tey moo ne woon daal dafa ñuy soxla waxtaan. mën ko lu baax la. yow ba yaa ngi tane. alhamdulilahi rabil sant yàlla bu baax. xanaa di leen sant di leen gërëm. rawatina Aida mii nga xamante euh topul xolam benn yoon ngir euh, ni ma yore won raxam ji xam toppoon sama sama gëm-gëm rek bo xamante amul benn lay, manam amul benn lay ba liko ko dal dal ko ginaaw nak jam ak pexem yalla ak dogalam hmm. ñaal ko rek mo fi dess ko ñaanal yàlla na ko yàlla xërëm xaare àjjana te yéexee ah, nit moom dañ koy taxawu. Oh. ku mu mënoon doon nit ñu taxawu ko rek. wallaahi wallaahi loolu la. yoobu de wax dëgg yàlla dangaa baax rek waaye nag eh, ay tamit wax dëgg yàlla deful lu dul devoir def waru garam rek la def. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, bu loolu weesoo dama ñëwoon tey nag ñu waxtaan. Mm-hmm. ndax damaa bëgg a taxawal benn association boo xamante ne day jàppale jigéen ñi mhm. ci bi ñu wanee lor mhm. ak bu ñu mujjee mhm. loolu laa ne woon naa ñëw waxtaan ci ak yéen ngeen jàppale ma ci loolu de dëgg yàlla ku ko war a mën a taxaw nga ne njoogu xam nga ne nag am nga ci expérience bu baree baree bare loolu moom loolu moom yàlla na ko yàlla sottal rek yéen ngeen taxaw ma nag ndax xam ngeen ni dof du wér day tane su ma naree xabaa rek ngeen ne ma naaj frenel ma lay taxaw loolu moom maa nga ca biir moom insha taxaw la doo fi xaabaabal la. déedéet nag loolu duñ ko xam. ah doo fi xaabaabal la. Ah. wóorul daal yéen daal. ne leen rek bu ma naree rek ngeen dama taxaw. doo fi xaabaabal Rub, dina rub, rub, dina rub, rub.